salaamaaleykum amateur foot yi di ñëw si kan Lionel Messi mu nekk argentin moom Lionel Messi tey nag dañuy ñëw waxtaan ci moom wax leen kan mooy Lionel Messi Lionel Messi mu nekk joueur boo xam ne ni jeune la mais aussi mu nekk joueur boo xam ne ni à tout moment day def différence mag la. mais bu jouer des mel ni bu am 20 ans mom Lionel Messi ndax à tout moment des def différence bo xolé Pérou ak Argentine mom Lionel Messi mo gagné match bi ndax mo doublé de deux bi mom Lionel Messi Lionel Messi nu muy gën di jëm mag muy gën a gën a mun a football football bu amul fenn moo tax nag day permettre Argentine équipe bi mun a jouer facilement boo dajee ak Argentine kan ngay njëkk a xalaat kan moo lay sonal mooy Lionel Messi mu nekk borom sept ballons d'or yi Lionel Messi mu nek mais aussi mu nek ku oyof ci biir terrain bi des tourner fépp lay tourner mom bu téye bal bi permettre équipe am de jouer facilement té mom Lionel Messi chaque match mu ngi koy def Pérou ak Argentine mom mo ray défenseurs yi. moom mooy créer moom mooy indi bal bi moom mooy dugal moom Lionel Messi naanaan la mu nekk jour boo xam ne nii nu muy gën a di jën mag mais aussi muy gën a di wane boppam ci football européen moom Lionel Messi Lionel Messi nag naanaan la jour la jour boo xam ne nii mérité lu ne ci carrière am moom Lionel Messi jour bu mun lu muy def la te noonu la calmé maanaam Lionel Messi doo ko dégg ci lenn moom Lionel Messi ndaanaan la kon nag bu leen di fàtte def commentaire bi ñu gën a waxtaan ci Lionel Messi boo xam ne nii ndaanaan la bu ñu fa jógee dañuy dem ci kan Neymar Junior Neymar Junior jeexale ko ci Neymar Junior mu nekk international brésilien diggante Brésil ak Uruguay moom Neymar defa blessé mu nekk blessure boo xam ne nii jaaxal na fédération bu Brésil génn nañ nag ba communiqué ne Neymar blessure bi jaaxal na leen tiital na leen Zoru Al Hilal blessé na de blessure boo xam ne nii jaaxal na ñëpp kon nañ ko ñaanaan moom Neymar boo xam ne nii dafa yeewaat commencé nekkaat ci forme blessure bi mu bañ ko sonal mais aussi mu bañ a doon blessure bu garaaw moom Neymar junior boo xam ne nii daanaan la mais star Argentine la mom eh, Neymar mom lañ leen indilon tay man la Alseyni Alamouta Sport bu leen di fàtte nak di abonné wu ci chaîne bi may ko doole man ak yeen ci kaw ci karam kontaan naa bu baax yeen samay abonné samay soppé bu baax yeen morom.